voilà mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm fii nga xamante ne moom mooy statu mbaaw ñi ngi fii fas yéene leen woon li nga xamante ne moom mooy open press su Siteu euh, ñuy nekk ci tëggkat yi gars nekk ci seen dernier réglage moo war a tàmbali rek ak ki nga xamante ne moom mooy jiili di tëggkatu Siteu mu nekk koo xamante ne tëgg yi ngeen di gis Siteu di ko fecc yëpp moom mooy ki nga xamante ne moom moo koy inspiré moom ak turupam alors mbokk yi bu ñu jógee ci lool danaa leen woon yeneen baax baax yi nga xamante ne am na moom mooy jiri jiri dafa mel ni Siteu lay waxale de jiri ah bi sama grand guy gi laay waxal guy ah, gi waaw ok maa ngi siyaar delloo siyaar frère naka yëngu yi Cheikh sant bu sant yàlla bu baax a baax a baax voilà ñu ñëw seet si la euh, ñu ñëw fekk la fii nga xamante ne mooy ci staatu mbaaw bi sa doomu nday war fee def open press bu am am solo gannaaw bu jógee États-Unis ñëw uh-huh. waaw waaw ñuy sant rek di wax ne xam nga kontaan nañ ñu leen di nuyu di ñu seetaan ñëpp yéen du kontaan seen teewaay parce que yow i jàpp nga si affaire yi xam nga boobu ba léegi woo ñu la si sant di la gërëm affaire yi nii la demee gis nga sa waay am na combat MMA États-Unis dañ na ay moyens yu bëri pour mën a ñëw fii yow xam nga ci lu bëri xam nga tey su ko neexoon mën naa ne mën na def foofu conférence de presse sol xam nga sol laal kosam bu baax toog wax ñi muy waxal dam wala bu ñëwee tey fii sax mu woote këram presse bi yëpp wuy si ko bu wax ak ñoom dam mais ba a bëggal ay ak saison balance bi bëgg a fàtt yooyu yëpp bëggal ay nitam xam nga moo ko jaral lii coono bii nii yëpp xam nga loolu donc la woon quoi. alors Yaag Siteu déglu naa la nga ne ànd ngeen bi ngeen di xale. waaw alors lan moo la gën a neex ci ànd bi sa diggante ak Siteu. li ma si gën a neex. li ma gën a neex si ay jikkoom. première benn bi la bëggul ko ko mere. li may wax ni nag ñi xam Siteu bi na xam li may soo ko boo ko xoola bu la maanaam boo ko defalul dara sax soo ko meree dem problème maam dafa ñàkk jom si wàllu xulóog mer da lay tuddaat saa si man maa ngi moom xam nga ku si mel ni maa ngi moom duñ juboo mais fi ñuy xuloowaatee su ma ajoo tuuti xam naa danaan kii mooy sama géwél moo may bégal mënu ma koo bàyyi day jékki-jékki dama may mbay mënu ma laa mere nag da bëri soir xam mu nekk nit ku baax nekk nit koo xam ne dafa reconnaissant quoi yee du fàtte démb lépp lu mu dund ak yow ëllëg dafa mën a sigil nitam si ay kanamu nawleem tey bu la fekkee si sa famille day def ba dafa ak yow loo xam ne sax mën naa ne moom image am na loolu xam nga ñu koy sant di ko ñaanal yàlla lafal ko cat affaire bi may ko si ndam lu rëy parce que Sénégal lay xeexal yee ñuy ñaan ñu jox ko drapeau bi version jox nañ ko ko sax mais nañ ci gën a kii ñu jox ko xam nga mu dam Sénégal gi yëpp nekk ci ginnaawam lii du làmb buñ fàtte loolu du làmb du gox a gox Sénégal laaj beneen dëkk drapeau ak drapeau la yàlla na jàmm yàgg alors nga commencé ànd moom ci làmb ci ña euh, ndax yéen a débuté ndoo ci làmb wala Siteu ñoo bokkoon atelier bu ñu ñëwee bokku ñoon benn atelier mais ñoo jàkkaarloo atelier comme marché lañ doon ñëwee place yëpp benn lay doon bu la neexee da ngay am sa ñaw sax nga dugg si place jàmbur ñëwee ko fa te li ma lay wax noonu amuñu sax amuñu sax 10 ans mën naa ne ñu nekk ay boy yu ndaw waaw yee ñu nekk xam nga ay xale yu ndaw di ànd Siteu bi ñuy ànd dafa dafa dafa yàgg man it yàlla natuma tey maama bi nga xam ne moom lañ ko mayoon jàmm gën yàlla na ko yàlla xare àjjana dafa laako bu dekki waatoon tey li macha allah li mbooloo mi di bari bari man dong lay jaar sama tur ne ma di sekk si loo ne ndax man maa nekk première nit bi nga xam ne maa doon fanaan foofu bu fa Siteu nekkul tamit dañuy xam ne sama gaale la fanaan loolu dañ ko dund quoi xam nga moo tax bari ki démb rek sax ñu ma invité rek di ma laaj ay waxaale yooyu mais am na bëri doo ko mën a expliquer ndax dañoo dund loo xam ne mooy loolu. ci yow comme frère amul ay waxaale seen diggante. Siteu de yàlla xam ne ne sama géwél la moom man it géwélam laa ndax feeg maa ngi yor junni mu koy soxla ne ma mbay indi junni bi du ma teg baat am ferte jox ko ko bu ko lekkee mu mel ni maa ko lekk damay suur moom noonu lay yoree million ma soxla ko si moom jël ko li ñuy xam nga wax baaxul mais fi mbër yu mag yi toll bu fa Siteu tolloon man gëm naa ne tey mooy loolu parce que nii nii nii rek macha allah mais xàmmeewu ma kuy tëgal keneen ndax maa ngi fi ma war a nekk bu ma déggee ñuy wax yenn détails yi sax dafa may jaaxal Siteu bi mu dalee bëre ba léegi dégg nga fi xuloo nekk mais mosoo dégg jiil ak Siteu macha allah yàlla na ko ne te du am parce que dafa am lu jiitu loolu bëggante bi parce bëgg-bëgg xaalis bu Siteu amoon làmb nga su fekk ma suñ kër billaahi wal kitaabi jox ma milliard ne ma daf ko lii mu daanu te mu wër na ma su ma ko defee day daanu barki maam Seera Fall du ma ko def. yeesaay alors euh, sa ànd ak Siteu ban victoire u moo la gën a neex ci làmbam yëpp. victoire u Siteu bi ma gën a neex ñaar la ñaar la tay bi muy bëreeg Zarko dañ ne mënul daan Zarko parce que nii wëg nii wëg nii Zarko ko pour doole moo ko ëpp nii xam Zarko suñu grand la borom Espagne borom France ñu koy nuyu. sama ay xarit kër ñoo koy tëggal ñu wax loolu mais dafa ñëw daana kii du ma sax teel a moom fii ngeen di xamee ne man du ma ragal sur boobu du ma ko fàtte mukk biñ ne suba la combat bi man moom ñu àndoon kër Serigne Abdou Karim xam nga kon kooku dèjà du ma tëgg katam ndax tëggkat yi buñ ne suba la combat duñ gis seen bëri man si te moo saakees ñoo bokk fanaan maak moom yeneen combat yi maa koy daw ndax bëgg ko mu nekk si boppam mais si bi nga xam ne man du ma kii naa ko def lu ko nit mësul def ñu xëy mu wan ma loolu day toog sax romb ma sabari ne ma jiile eh démb bi ñuy jugee fee ne ma maa ngi si lambu ji départu ma ndax dama koy xool sax defe ne dañ ko jàpp ndax bëggante bi daf may xool moom xam ne sax ma damay xaw a tiit mu ne ma mbay démb maa ngi yow ñu Karim xam moom du ma wax jiile ma koy ñaanal kooku sama xarit la mën naa la wax si moom lu bari li ma mën a wax si moom dafa bëri li may parce que li may wax du wax nit barke Sëñ Fallou moo la gën a naqari boo xamante ne neexut a digérer Siteu Sa Thiès. Siteu Sa Thiès. mooy defet bi nga xam ne moo ma gën a naqari mais tamit naqari wu ma tey benn li mu tax mu naqari woon ma mooy xam nga rek tey lambu làmbu la mais dañu dañu si jiiñ ay ay ay yàlla ma yàlla ngeen baal ma si kàddu bi dëmm ba pare jox ñu ay yeelu mbote ñu koy soccoo yeelu liir parce que dañuy wax ay diw moo ñëw fi ay nit si da ñoo ñëw fi ñoo ñëw fii te yàlla xam na ne barke Serigne Saliou lamb jooju xam nga passé na bu yàgg si temps yi nii tey bay def leneen ak leneen Sa Thiès bëre waat fi ay lamb avancé waat fi ñoom ñëpp ñoo bokk ndeeg baay instant bi ñoom ñëpp ñu ngi am yaakaar di leen xaar fii ñi bëgg ñu ñëw xam nga guy la demee mais lamb jooju li ñu si wax ba pare ñuy dégg moo leen ëpp doole moo leen def lii xam nga moo leen def lii waroo leen koon jël ba pare lamb ji ñëw demee noonu te ñun ñu xam ndeysaan lamb jooju li si nekk lépp moo ñun lamb jooju lañ gënoon a am yaakaar suñu lamb mujj gi dem nañ ba jàppee Sa Thiès dara mu baal ñu champion la mais dem nañ ba ñun moom làmb ji xam làmb ji xam suñu mbër liñ ci liggéey ak xam liñ ci préparé ba jàppee ko benn yaaw jaal moom Sa Thiès looloo ñu gën a rayulu si làmb ji ñu ñëw di feetu mooy tëgg si te di fecc <laughs> xam nga mooy loolu. mais bi fu muy jógee boo créé xeetu tëgg yooyu. xeetu tëgg bari ki dem dañoo taxaw këram jàmm gën ñu yëg si kaw étage bi di répété mu ñëw mu ne ma mbay loo créé ma ne ko mais instant bii de is xam nga ne fi ma taxaw nii ma dara pour tëggal la ko <laughs> maa wo ba mu jógee Almadi fi mu nekk ñëw pour ñu répéter mu ñëw ba pare ne ma lan la ma ne ko wóor na yàlla xaw ma lan la mais kaay bu ñu demee ba foofu ba taxaw moom li yàlla mayoo bu ko nanguloon naa la tëggal lu kenn dul din te noon la deme jox nañ la verte zone rouge ak étoile ba nga yóbbu États-Unis wax leen Siteu yaa Sénégal ba jéggi frontière yi demee MMA di nga fa toj mel na moom su ma ñaqee rek loo bëgg mu tëggal na parce que dama lay defal ak yéene. yee du xaalis du dara barke sëñ Saliou parce que gëm naa ne bisi na jot. yàlla baax na sax wax baaxul. nga nekk euh, fa laay tëjee euh, xale boo xamante ne macha allah gars bi ñuy woo ténor yi nga xamante ne ñooy tëggal mbër yu mag a mag yi. nga xamante ne roi des arènes rek la ñu rangale woon ay tëggkatu roi des arènes. yow nga bokk ci ak ki nga xamante ne mooy tëggkatu. Euh, Boy Niang ak gànn tëggkatu Boy Niang ak monsieur Yacine suma mag ak Baye Demba sama xarit sama grand. noo ko dundee nga nekk xale ndaw ñi nekk sa papa sax yow. waa gis nga Adama Ngom moom sama papa la parce que doomam Youssou Ngom sama xarit la di sama morom xama Euh, père Gana ay doomam macha allah am na si ñoo xam ne ñoom moom sama père la moom it Baye Demba sama grand la xam nga monsieur Yacine sama grand la ñooñu tey ku si nekk jiitoo nga ma si aar lu mat vingt ans ëpp na ko sax xam nga tey su ma demee bañ teg ma maag ñoom fenn rek dama ci kontaan mais tamit du tax sax ma jàpp na ñi samay morom lañ lu ñu ma fa teg teg teg dama leen di jox cër biñ moom parce que benn émission boobu moo ñu boole rek tey émission bi da ngay gis ku ñëw jël taxi nga gis ku ñëw mën naa am kenn mën naa jóge États-Unis léegi sax wàcc aéroport bi daf direct télé nga gis ku ñëw indi oto boppam nga gis ku ñëw indi 300 nga gis ku ñëw indi Range Rover nga gis ku ñëw indi yaa may dégg kon bokkul émission boobu moo leen boole boo leen jàppee morom tamit bu ngeen génnee si biti xam ne doole yamul kon cër faaw mu yam yee maa ngi bëggee gars di kontaan yàlla na jaamu yàgg allez Cheikh këg